ñu jéem a seet Serigne Habib si moom maam Dabaax yàlla suñu borom fay ñu ko. borom borom ay nu max di. waaw kay. Hmm? baay bi day faykatu lakk la woon moom. Hmm. kooku moom sapeur la woon. waaw mu mel ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam wa rahmatullah si. maaleykum salaam wa ah, mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ci lii nga xamante ne bii boole ngeen ma ci. ma bëgg a yëkkati sama kàddu nag. teg ko rek ci ni doomu réew mi laa comme yéen yi toog ci télé bi ak képp ku ñuy déglu ci réew mi ak ci gitim réew di am gàcce lool tey ak naqas ci lii ma gis mu xew ci réew mi te dara du ci dëgg teguñu ko fenn lu dul ci bëgg a faagaagal nit mhm. benn bu jëkk bi M'adresse ko directement président de la république monsieur Macky Fall. Mon bëgg mu modèle ci xelam xam ni ba ñu koy fal bu ñu ni fii la ñuy mujj duñu ko fi teg. li may wax nag ça n'engage que moi. Mhm. te lu ci góobe gar ko nëbbatuwuma laqatuwuma. Mhm. bu ñu ni fii lay mujjee réew mi duñu ko fi ma bëgg mu delloo ci xelam te xam ni lépp ay jeex te ku ko ni woon dina fi toog 2012 ak léegi mu weddi ko ndax plan bu ne tëral nañ ko ko kon su xalaatoon tuuti dina am yeneen doxalin yi mu def lu dul di tëral ay nit di leen comploter ba ñu yegg si fii tey mës naa ko wax ni ko moom yàgg na booba jóge na ci nguur gi mu nekkoon ñu daje ci benn barab ñu présenté ma ko ma ni ko su fekkee ni yaa ngi gëm sa bopp gëm yàlla bu yàlla ne di nga toog ci réew mi di nga fi toog. waaye booba léegi ma di ko suivre. amoon yaakaar ci moom ndax ñi ko fi jiitu woon ñëpp ku ci nekk def nga fi dara ba dem waaye ay mag la ñu woon ñu jàppoon ni. comme ndaw la luy doole a yegg juddu après l'indépendance dina yóbbu Sénégal fu ñëpp ne eskay malheureusement tel na pale le président delloo sil sa xel te nga seet sa entourage yi fiy xew bare na te nguuru yàlla rekk a dul jeex bis dina ñëw dinga fi génn ni ci bii wala ci nale mhm. li xew nag ñu ne ku ci wax ñu rëq sa ndigg wala ñu jëlee la fi mooy troisième mandat yow yaa taxawoon ci devant devant le peuple sénégalais adduna yëpp di la dégg nga waat ni bii ngay jeexale ñu dem ba ci biir feebaru nguur dugg la gis nañu la xew ci suñu voisin yi duma tudd tur di tooñ bu fekkee ni loola moo la ambitionné ba tax nga jàpp ni foofu ak fii ñoo yem yaa ngi ci erreur monumentale delloo si sa xel ñun ànduñoo ak yow ci lii léegi sax réew mi àgg nañu ci sëriñ su waxati sax ñu ni dañu noppi torop waaye dafa ci am ñoo xam ne ay suñu kilifa la ñu mag la ñu wax nañu ba sonn te mag nag ku ko yëgul mu yëg boppam teg loxoom ci dënnam ni mën a diw looloo tax ñoom dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg fi waaye ñu nag yow nag dootuñu noppeeti insha allahu taala ci kattanu yàlla ak baaxam jërëjëf façon bu ne ñu ngi koy jéem malheureusement dégguloo ñu lii xew nag li ma ciy indi man li ma ci gën a metti du sax affaire Sonko dëgg la metti na ak li ñu ko teg ak li ñu ko wax te li ma jot a dégg yëpp ci média bi dégg ko ci ay nit déglu ko ci ay sources yoo xam ni wóor na ma ni ñii lu ñuy wax xam nañu ci lu leer lépp dañ ko comploté de A à Z. Mm-hmm. waaye nag olof Njaay nee na kuy gasal sa noon pax bu mu xóot ndax ëllëg ay tax mën nga ca dugg. Mm-hmm. fii lu ne xew na fi. yàlla ni patt rek di seetaan. ñu jàpp ni dafa fàtte déedéet. dafa dënniir lu rek. président delloo sil sa xel. président delloo sil sa xel te nga seetaat sa entourage. loolu benn la. li ci des ma jëmale ko ci ndaw yi réew mi nga xam ni ñu ngi assemblée nationale ñu teg leen fa. Hmm. askan bi teg leen fa am si ñoo xamante ni bi dara ñorul leen ludul lépp luy kontaan loo président rek ñu nga ca suba ngoon guddeeg bëccëg. te bu leen fàtte ni. deretu nit ñi lañ leen di faye ngeen koy lekk bu ngeen ci lekk billaahi wa kitaabihi ëllëg a gi ñëw bu ngeen duggee bin baan bàmmeel dinañ la dinañ leen ko laaj summa la tusalunna yawma idin anin naay alquran la yéen gëmatu leen yàlla ñu si bare bare bokk wala bu ñu ko gëmee yaakaar nañ ni loolu yëpp ay caaxaan la sama mag Moustapha Niass moo nekk président assemblée nationale depuis le temps mi ngi ci ci ay pouvoir depuis le temps Senghor Abdou Diouf lay Wade ba Macky Sall ñëw ma bëggoon moom itam lépp lu ñu fa indi di ko woote en tant que mag mu fekkee lu bare te yàlla defal ko teraanga lépp lu ko wóor ni lii ay complot la mu bañ caa dugg te des yàlla te xam ni yàlla ñëpp la fi nekkal beneen bi ci topp mu ñi nga xam ni ñoom la ñu wax ni ñoo yore affaire justice boko ko set buñu bu deug ak buñu waxul deug dafa melni ñaari sénégalais fi am. Mm-hmm. et c'est la vérité. ci nga xamni ni ji moy procureur sama ben wax rek la koy fatali mu bayyi ci xel ak cëpp ko xamni ni ko ci ministre de la justice ak ñi top ci sen gannaaw yonenté bi dafa waxon bu yàgg ni mm-hmm. kat yépp ñett rek lañu ñaar ñëpp safara lañu jëm rikk da mm-hmm. ngeen bayyi wax jojj xel te xam ni yàlla du waxantu mm-hmm. ndax nit am dëggam ngeen ëpp ko doole ba dëgg ci loolu fexe ba néewal ko doole dugal ko ci kaso yaakaar ni rëcc ngeen mm-hmm. xamu leen li xaw kon delloo si leen seen xel man dama bokk ci ñi ñi gëm ni fii ci senegal du ñépp nag am na ci ñoo xam ne dañu intègre am jikko yu baax a baax a baax mm-hmm. ragal yàlla lol te xam ni ëllëg dina taxaw ba tax lu ñu d'accord lu wane ni d'accord ñu ci waaye am na ñoo xam ni nag lu ñu leen indil rek ñu ànd ci ak mom def leen dank dello ci leen seen xel dello ci leen seen sago benen bi ci def modi le peuple sénégalais ñom lay waxan tel di di leen di leen di leen massawu coono te di leen wax ni yàlla jeexul ndax dafa amoon waykatu arab bu yàgg bu waxoon ida shaabu yowman araada alxayaata fala budda an yastajiba alqadar fala budda lilleyli an yanjali fala budda lilqaydi an yankasir kon nag yéen le peuple sénégalais man maa ngi ànd ak yéen de tout cœur maa ngi ñaan xale yi nañu jéem a def lépp lu ñu mën a def ba dox muumu njaam ji ñu mu bëgg takkalaat bees waaye ci façon boo xam ne ñépp dinañu xam ni taxaw nañu def nañu li ñu war a def waaye ma leen di ñaan léeg-léeg nga romb koo xam ne dafa bokk ci sénégalais lam daan ndeysaan dajale ba am otoom ëpp naa lakk kooku nañu jëflanteeg ñu ñu war jëflanteel ba ñu xam ni réew mii santul fay santul sàll santul mbàkke santul si santul ay dara njaay sénégal njaay la wax ñun ñépp ay doomu sénégal lañu ay doomu réew mi leen bii daal laa ni woon dinaa ci sànni sama kàddu ñu delloo ci xel lii ëpp na ñaaw na am na ñoo xam ne ku leen woon ci sénégal wax leen bii daañu ko weddi te man dama bokkoon ci ngeen baal ma ci ñu contrôle Ablaye Wade rëccu naa ko nag maa ngi koy jéggalu bu baax moom waaw lii daal laa amoon ci lu may wax encore une fois di jéggalu ci kàddu gi la ma ca jublu woon du vexé kenn waaye yi tamit boo dee nit di xam li xew ci réew mi te bokk ci réew mi nga gis loo xam ne mu ngi am te sànni woo ca sa kàddu complice kenn yeesu la. dëgg la allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. macha allah macha allah macha allah si. macha allah mën naa ci def commentaire bu ndaw rek. waaw xanaa remercier parce que dafa am lu am solo moom lu mu def. il faut que sénégalais yi xam ko. yàggul dara def na ñaari semaine ci ginnaaw. daf ñu woo nañu dama leen soxla. ñu ne ko baax na kon fan lañ lay fekk mu ne ma déedéet. man maa leen soxla. kon man maay ñëw fekk si leen. macha ndax lii ma leen di doyee soxla yi réew mi la. te fukki bi mu ñëwee toog mu ne fukki at a ngi nii may observé. ma gis ngeen di jug di sonn di xeex di taxaw lépp rek ngir état de droit. lépp ngir démocratie buñ bañ a salfaañi. ma ne kat seen xeex bi dafa mel ni dangeen ci wéet. weetu leen ci naam. ndax askan baa ngi suivre. waaye dafa baax ñu mel ni ñun. di jug ñëw nag affiché wu. wan ñi di woowee sen bop tay nitu aduna que ni kat nak ah ñun nak am nañ sañ-sañu taxaw ne dinañ dog bu mu mi affiché wu wanal suñu appartenance bokku ci yeen ànd ak yéen ci xex bi bi muy dugg di wax ba légui j'ai reçu des tonnes de messages yo xamanteni ni ñëpp naa ma kii mooy sama sëriñ kii mooy sama sëriñ kii mooy sama sëriñ ñoo xamante ni ci bañ rek laa leen xamoon kon macha allah sëñ Habib si la mu maam da baax koo xamante ni Sénégal ko ñoo koo xamante ni dëgg ko ñoo koo xamante ni ni papam bu baax ba baayam bu baax ba doon taxawee mm. bu Sénégal soxlawaat bu askanu Sénégal soxlawaat noonu la nekk